mu ngoog euh, Seydina Omar kon ñu jaajëfal du Dieye comme ni nga ko waxee jàll ci li ci yéen kaay tàmbale kook Walf Quotidien bu tey. waaw Walf Quotidien dafa xëy dellusiwaat ci maître Abdoulaye Wade bi nga xam ni daanaka Euh, mujjee ne fee bàyyi ko démb ab vol spécial daal la jël daal di utali fële ca Paris France noonu la ko yéen gi xëy fësale euh, yéen gi nag ne demub kii naa jur ab xëy mi na ci bopp askan wi yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel leneen tamit loo xam ne yéen kaay gi xëy na ko fësal te mooy vaccin bi nga xam moo soxla wàllu troisième âge euh, nee na daal di mag ñi fu mu toll daal kenn toogatul ñëpp ña ngay daw utali vaccin yi yéen kaay gi di Walf Quotidien kon ci loolu la xëyee dellu si waat mu euh, a euh, mhm. euh, daal li nga xam mooy li ko jaaxal rek du lenn lu mooy majorité mécanique bi nga xam ne ni moom la waa APR amee wala waa coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. amee ci assemblée nationale waaye bu dee kii di Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké moom mu ngi fare ci convergence bokk gis-gis nee foofu yëpp mënoon nañ fa bañ yegg su fekkonte ne kii di euh, Cheikh Mbacké Bara Dolly euh, jëloon dogal kon daal di démissionné commission ad bi ndax loolu yi bu ko defoon nag dina leen mën a permettre ñu daal di mbir yi ci justice noonu la ko yéenekaay gii di la tribune dafa xëyee dellu si ci mbir Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr assemblée nationale ko ki lañ fas yéene jébal kii di Ousmane Sonko euh, juge bi nga xam moo fas yéene le quotidien waaye yéen kaay ji di le quotidien ne immunité parlementaire Ousmane Sonko ëllëg incha allah ci la ñuy fas summi mhm. eh, ñi nga xam ne ay naatangoom ne nañ ne ne mbir yi duñ ko bàyyi mu jàll traité incha allah rabi neex na xat yi eh, dox utali pare noonu la ko yéen kaay di le quotidien xëye feesale yéenekaay bi di le témoin la mu fësal bu dee yéenekaay gi di le témoin dafa ci tiitaange gi nga xam ne daanaka neexul ba na ci eh, ci askan wi yow mm-hmm. eh, gi moo xëyee fësal lu ni mel nee nañu waaye député yi inchallah rabbi ëllëg ci la ñu fas yéene daje eh, ñu si ba daal ñu ngi fësal seen njàqare jëmale ko ci bu ñu muree la Ndakaar war a mel ëllëg la ko yéenekaay gi xëy fësalee ñi nga xam ñoo di lébu ñoom ña ngay ñaan ngir Sénégal bañ a tàbbi ci guta Clédor mhm. Sène Assane Diouf ak Guy Marius dem moom dañu leen mujjee def retour de parquet yéen kaay gii di la tey mooy ci loolu la xëy dellu si yàlla jàmm yàgg ñu jàll ci li quotidien lii quotidien dafa xëy dellu si waat ci Guy Marius Sagna Assane ak Clédor Sène yéen gi ne yéen kaay gi xëy tey ji dañu xamle ak ñooñu lee mhm. ne daal ay nit lañ yoo xam ne daanaka ñoom moom nit ñu mës a dëgër bopp lañu euh, nit ñu am gëm-gëm lañu tax yéen gi xëy tey ji dañu xamle ak ñoom Euh, Sud Quotidien la mu fësal. Ah, bu dee yéen kaay gi Sud Quotidien dafa xëyee dellu siwaat ci euh, lu jëm ci euh, xanaa Forondo Ousmane Sonko yi nga xam ne ni ñu ngi leen di jàpp saa su gi ne ba neexul waaye Sonko daal dafa nekk ci tànk kii di Khalifa Sall noonu la ko yéen kaay gii dafa xëyee dellu siwaat ci Ousmane Sonko miñ ne ëllëg ci lañ koy fas yéene jébal juge bi yéen gi moo xëy fësal lu ni mel Cheikh Bara Dolly ak Abdoulaye Makhtar Diop moom démb ci ndaje mi ñu amal daanaka jox nañ nañ fa laalee euh, noonu la ko yéen gi ne kaay gi xëy na ko fësal nee nañ ñaari xale yoo xam ne ni euh, dañ doon bu boy ne doomu Macky Sall ak Idrissa ak Idrissa la euh, ñu ñu te li ci gën a doy waar mooy facture bi mhm. présidence ko fayee noonu la ko yéen kaay gii di les échos xëyee fësale <laughs> Sénégal neex na laas lu mu fësal <laughs> yéen kaay gii di laas xëyee dalu si waat ci mbir yi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko yéen kaay gii ne ku yeboo rek fegu te xam ne ne Sénégal moom boo moy ci takk la jëm noonu la ko yéen kaay gii di laas

teewlu fële ci tribunal euh, yéen gi nag xam ne ak ndaje mi nga xam jot naa dox démb ci digganteem ak ñii ay avocat fii ci Ndakaaru yéen gi moo xëy fësal lu ni mel mhm. yéen gi damay xëy dellu euh, ne euh, tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu ñu mu ngi soxal certificat de nationalité sénégalaise bi nga xam daal dañ koy jaay ay étranger mhm. yéen gi li ci doy waar mooy am na benn waay xam ne nii dañu fekk moom kayit yi mhm. te waa ji mu ngi bokk ci ay ci waa maanaam terroriste noonu la ko yéenekaay gi di Libération xëy fësale. doy na waar Vox Populi. Euh, xeex ak mbas mi di Covid lu ci toll ak juróomi téeméeri junni euh, ci ay doomi aadama euh, ñoom la ñuy ciblé daal ngir vacciner leen fii ci fii ci diwaanu Dakar laata 2022 noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale. lu jëm nag ci vaccination yi lay njiital Macky Sall tey jii daal bu ñeenti waxtu jot ci lay fas yéene jël dose am fële ca ba yéenekaay gi la xëy dellu si waat. ñu jàll ci le soleil. yéenekaay gi di le soleil dafa xëyee dellusiwaat ci programme yi nga xam ne gouvernement bu Sénégal taxawal na ko muy PUMA PUDC ak Promoville euh, yéen i kaay gi ne état a euh, a mm-hmm. euh, i ci wàllu Ligue des yi mm-hmm. Real Madrid ak làmb jeeg sunu làmb wax ci combat combat gi nga xam war naa dox ci diggante Lac 2 ak Eumeu Sène mu nekk combat boo xam ne nii euh, daanaka daal dañuy jàpp euh, dañoo euh, dafa yóbbee dafa yóbbee sax yéen kaay gi xëy samp laaj bëgg xam ndax combat boobu lee mhm. dana bégal supporters yi mhm. noonu la ko yéen kaay gii di sunu làmb xëy fësale ah yal na leen bégal <laughs> en tout cas bégal nga ñu ndax jottali nga xibaar yi fi jot a ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laan waa mi naan électricité ak si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa bureau sa kër